yaa xamante ni moom mooy ci buntu kër gi gis ngeen ni bu bousculade bu bu bari moom moo fa nekk taalibe yi ku nekk bëgg a bëgg a gis ku tedd gi sëriñ Abdou Karim Makalimul Axla gis nga ñëpp ku nekk yaa ngi eh, rey sa bopp ngir bëgg koo gis eh, gis nga nag waaye tamit eh, ñu bari takk nañu mas gis ngeen Baay Faal yi ñu ngi ci buntu bi di xool li nga xamante ni ñi mën a arrangé taalibe yi ñu mën a rang nag eh, li nga xam ne moom mooy góor di jigéen di mag at ndaw képp ko képp ku jugee eh, dëkk ak dëkk ñëw ba fi Touba dafa ñëw uniquement pour gis ki nga xam ne moom mooy sëñ bu mag bi di sëñ Abdou Karim eh, Mbacké mhm. alors ni ko Saliou waxee gis ngeen ni nee na moom xër moom moo tax taalibe yi ku nekk di ray sa bopp ngir bëgg koo gis waaye li ci mënti am mi ngi nii nag waaye nag pour man nag war nañu li nga xamante ni moom la leen sécurité bi di wax ndax amaana bu ñu jaxasoo wee ne ci bunt bi dugg bi dina jafe ci ñenn ñi ndax am na ay xale yu ndaw yu ma fi gis am na également ay mag sal waaye aussi tamit ñu gis ne respecté nañ li nga xam ne moom mooy euh, port des masques respecté nañ aussi tamit li nga xam ne moom mooy gel hydroalcoolique yi tamit li nga xam ne moos li nga xam ne moom mooy mbas mi ñu xam ne mbas mi jusqu'à présent mi ngi am fi nga xam ne moom mooy Sénégal tey ñu benn taalibe benn ndongo ñu laaj ko balaa tout bàyyi ko mu présenté wu Cheikh bi ñu lay nuyu. waaw ñoo ngi lay baax di ziar mbokk yëpp rek waa tudd Fallou Ngom la waaw. bàyyi yaa baax waaye sant sëñ bu wér kay bu baax a baax. alhamdulilah Fallou tey ñu gis ne fi nga xamante ne mooy kër sëñ Abdou Karim yaakaar naa ne da nga bokk si organisation yi wala da nga ñëw pour ziar si. maa ngi nekk bokk si diwaan Karim Sécurité bi nga xam ne. mi ko yëg tëj mi ko bi nga xam ne dana bokk si liggéeyu sëriñ bi waaw ñu ngi koy taxawee chaque màggal ñu koy taxawaay façon taxawaay bii nii ndax ku ñëw fii xam ne fii moom mbooloo moo fi daje sa ku baax ki day yittewoo ñoo xam ne dañuy organiser kër gi léegi it ñu ànd ci ak suñuy jëwriñ ñu ànd ñoom si liggéey bi waaw di si góor bu baax nag di taxaw bis bi bu baax a baax a baax bu baax daal si loolu la nekk daal di def jëfe ndigal yi rek waaw di dund ak Baye Fall dund Baye Fall daal ku ne xam na ko sëg daal